démocratie bu Sénégal maanaam dugal na ca loxoom yéenekaay gi nee na un homme multidimensionnel Amadou Makhtar Mbow royukaay la ci mbooleem koo xam ne ab sénégalais nga yéenekaay gi di Direct News nee na en tout cas li am ba des la mooy professeur bu riche boo xamante ni daan na koy def moom mi fi nekkoon ay jamono na lépp loo xam ne jëm na ci wàllum xeex ngir nag intérêt réewum Sénégal Amadou Makhtar Mbow woon na sol loola yéenekaay gi de la sa nee na Amadou Makhtar Mbow téeméeri at yi na ko téeméeri at la yoo xamante ne yu am njëriñ la ci Sall un éternel combattant noonu la ko yéenekaay gi de la Soleil xëy di woowee yéenekaay gi di Sud Quotidien nee na Amadou Mahtar Mbow moo nekk africain bi njëkk a jiite UNESCO militant la boo xamante ni yàgg naa xeex ci lu jëm ci wàllum libération wàllum solidarité entre peuple ba pare lu jëm ci wàllum démocratie ak àq ak doomu aadama ak intérêt réewum senegal Amadou Mahtar mbaw dugal na ca loxom yéenekaay gi nee na ko sa dund gi am na njariñ yéenekaay gi di réew mi Quotidien moom tim xëy di jooy ba tey ki nga xam ne mooy Thione Seck mi fi bàyyi ko bërki démboo Njaay journal bi nee na ñàkk la koo xamante ni ñàkk gu la waaye Thione Seck nitu nit ñi la woon nit ku baax la woon moo taxit këram ba léegi nit ñi ñoo nga fay jaabaa jonge ku dugg ba génn sa morom dugg yéen a na mbir mi nag métti na waaye nag en tout cas il faut ñu muñ ko te li nga xam ne Thione Seck wax na ko fi du ñu ko gaaw fàtte ci réew mi yéen a kaay gi di libération nee na état de catastrophe bi yëkkati nañu ko te woppi coronavirus ji ma ngi gën di law ci réewum Sénégal ndax lu toll ci junni ci ay nit ñàkk nañu seen bakkan bi mbas mi commencé ba léegi lu toll si ñaari téeméer ak juróom benn téeméer ak juróom benn ci ay nit yoo xam ne jamono ji ñuy waxe ak yéen ñoo ngi tëdd ci lali hôpitaux yi yéen a kaay gi di la sa nee na état de bi jëlee ko ci réew mi waaye nag dee ba léegi nii ci coronavirus maanaam ma ngi gën di law ba tey ci biir journal bii di enquête xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum émigration clandestine gi mbir mi nag dafa mel ni dafay waaj a commencé ndax am na benn gaal boo xam ne ñu bari ñoo ci duggoon bëgg a dem ca bitim réew teg nañu leen loxo yéen a kaay gi di la sa wax ci ni dindi woon nañ ko dafa am ay député yu nekk ci guddi gi demoon nañu saisir conseil constitutionnel waaye boobee daf leen koo daal di gàntal nee na leen daal damaa incompétent ci mbir mi yéen a kaay Vox Populi nee na Ndeye mi nga xam ne moomoom salon boobu nga xam ne fa la ñu tuumalee Ousmane Sonko Adji Sarr daf koo tuumal barki démb daal di wax ne salon boobee dañu fa doon def lu bon ba pare Ndeye Khady moo ko doon digal ngir mu avorté Ndeye Khady Ndiaye nag démb daal def na ab vidéo génn ab kaamil waat na si aqulaay taala ne la nga xam ne Adji Sarr wa na ko lépp a kaay gii na njiitul Pastef di Ousmane Sonko démb seeti woon na waa groupe Futurs Médias di waxtaan ak ñoom ngir dem na juboo ji ak Ahmed Khalifa Niass di draguer ki nga xam ne mooy Maimouna Bousso yéene kaay gi de la sa njiitu réew mi di président Macky Sall ginnaaw bi mu gisantee ak leader bokk ci Bokk Yaakaar daan na leen di ñaax ngir ñu takk taxaw yéene kaay gi di Sud Quotidien nee na élection locale du gaaw a am ci réewum Sénégal ndax na xaalis bi nga xamante ne moom lañ jagleeloon liggéey yi jëm ci wàllum évaluation processus électoral bi xaalis boobee ba léegi état bu Sénégal décaisseeku ko ko yéene kaay gi di réew mi Quotidien génn ñu réew mi yóbbu ñu ca réewum Tanzanie ki nga xam ne mooy Samia Assane moo jiite réew ma moo nekk nag première chef de l' état ca Tanzanie yéen a kaay wax ci Ligue des champions quart de finale yu dëgër këcc yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci tirage bi journal bi ne na Bayern ak Paris saint du nekk match bu yomb Real de Madrid ak Liverpool bu Sadio du nekk match bu yomb journal bi nee na ay retrouvailles explosif yéen a kaay gi sunu làmb nee na Lac de Guiers numéro 2 ak i mbokkam ak i supporteram ñu def ndànk bay boo ñu nga xam ne mooy Eumeu a jàkkaarloo ak moom ñeente fan ci weeru